jamono jooju parce que juste premier gouvernement bi daf la jox li nga xamante ne moom mooy wàllu yoon justice. Euh, ñu tàmbali nag li ñuy li ñu naan euh, traque des biens mal acquis mais ñu bëri foofu dafa am benn étiquette buñ la étiqueté moo tax ñu tàmbali woon fi nga xamante ne moom mooy sa jaar jaar ba léegi mooy koo xamante ne dafa dafa xaw a dur euh, des fois du ñàkk nga dégg commentaire yooyu quest que cela vous fait PM. juru ba sax ndax euh, bari naa ay man nag ku mën a téye kóllëre laa man ci loolu bu ma doon bàkk sama bopp loolu lay njëkk a jàpp man xarit ya ma amoon ba may ndaw ñoom laa am ba tey ña ma xamoon ña ma euh, voilà donc euh, non xam nga fulla tax taxul nga nga bañ laa biir mhm. ñaar ñi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy confondre man ba ma ñëwee nekk ministre de la justice Euh, ci instruction au président de la république ci ngay liggéeyee ministre loolu moom ñëpp xam nañ ko. Mhm. ministre bu deful lu président bëgg nga def ca ngoon sax da ngay wàcc. loolu moom kenn ñi <laughs> xanaa ku ñàkkee ñàkk xam gouvernement xam nga ci loolu. te bonne gouvernance aussi da doon loo xam ne lii moom ci boppam moom président Macky Sall waxante woon na ko askan wi. dangeen ko diggee woon voilà. Mhm. bokk na ci li tax ñu fal ko. Mhm. booy seet yéen a ngi fàttaliku boobu valise u Ségura yi ñoo amoon ak scandale bu nekk amoon na fi ca jamono yooyu. sénégalais yi aussi bëggoon vraiment ci wàllu bonne gouvernance ñu def fi ay progrès mu jox ma ci ay instruction ñu commencé liggéey lañ doon liggéey mm-hmm. euh, ki nga xam ne mooy doomu président Ablaye Wade dem procès euh, voilà ba li ci am am ci euh, noonu la liggéey buñ la ko joxee da nga ciy def li nga ci war a def buñ ma joxoon je sais pas moi ministère de la culture aussi noonu laa ciy saware loolu laa ciy defee pour mën a am même fi nga siy def. waaw waaw même alors ci eh sa wàllu liggéey en septembre 2013. Euh, je vous montre une photo boo xamante ne xëy na doo ko fàtte ndax moom moo andi. Euh, turu euh, premier ministre bi. nga wuutu ci fi nga xamante ne moom mooy primature mm-hmm. du mbay qu'est-ce que cela vous a fait nga nekk ñaareelu jigéen. Mm-hmm. histoire du Sénégal yëpp après Maman Dior Boy 2010 après 2011 2013. nga nekk ñaareelu jigéen bu jiite gouvernement. waaw waroon naa am ci diggante bi jigéen ñu bari d'ailleurs je pense euh, mais euh, da ngay jàpp ne responsabilité la comme liggéey xam nga man comme damaa mos a liggéey boo ma joxee poste rek la may njëkk a seet mooy ana yoon wi nga may jaar ba am ci résultat donc day yokk sa responsabilité nga gën a yokk euh, voilà euh, jom ji. Mhm. voilà. Euh, di liggéey ba xaaji guddi loo mën a def rek pour am résultat. nga vous arrêtez de descendre à quelle ah non à des heures indues ah deux heures du matin poste yooyu moom euh, euh, voilà amul amul heure loolu amul heure. Mhm. voilà da nga ciy def sa kéemtulaayu kàttan parce que suñuy problème mu réew bi aussi dafay dafay bëri te tar donc boo ci bëggee résultat moom foog nga foog nga liggéey ci lu lu yàgg yàgg yàgg. jigéen premier ministre jigéen mère de mère au foyer euh, naka naka nga doon def. pour allier les deux. parce que yaa ngi ko doon def mais là la charge il est encore beaucoup plus lourde. waaw mais day fekk sa doom yi xaw a mag tuuti bu ñu ndawee nag ci lay gën a metti ak sa borom kër di la jàppale voilà moom moom. Euh, vous avez bénéficié du soutien de votre ah mari. oui oui oui euh, tout au long tout au long de tout li ñuy wax ni yëpp. soo amul borom kër bu la mën a jàppale day c'est day presque impossible donc moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla fay ko ko ci yow. amiin amiin El Hadj Oumar. Euh, mhm. voilà moom it euh, ku ma jàppale la. Mhm. parce que sinon c'est pas possible.